yow sa dàgg ñàkk mën a dem moo tax nga retourné waat ci ginnaaw Moustapha Cissé ak ak Pate Diakhaté mais sam pexe bu joyeen doo ñëw ci ñoom loolu tax ma ne leen xale yi arrêté naa leen ne pexe noonu daaw bu Antoine tooñu ko waat nangu lam bañal ñàkk leen accepté moo taxan leen lu ne nga yàq ko ci parti bi ngir ñoom ñu yàq ci parti bi dem nga ba xam ne ni yow lompañ nga tële nga amoo doole représenté woo dara nit ñi ba nañ la sa baas amoo benn baas moo tax amoo benn baas moo tax nga ñu ko waat ñëwaat seen ginnaaw kooku de defaru leen di yàq foofu na laa yem ci yéen mais nag président Idrissa moom pour jugee pour ñëw Touba foom jëm yow xool képp ñeme woo ko xam nga loolu kon xam nga sa bopp parce que ñi nga xam ne nii ñoom lay fekk si duñ say nawle ba nga ñemee xool fañ jëm parce que amoo benn représentativité benn représentant benn représentant amoo benn benn benn benn wàccuwaay ak benn daraja ci département Touba parce que yow foofu nit ñi wedd nañ la parce que nit kuy jaxase rek la jaxase wax lu ñaaw jaxase wax lu ñaaw lu ñëpp xam ne loo tax ñoom ñoom Touba wàccu la wàcc gël Tuubaa wàcc nag moo tax nga nu ko waat nag bëgg du dulaat ay martu pour mën a pour man ñu gis la mais déedéet yow fi ne nii Tuubaa ci boobu dañu laa wàcc dañu laa wàccu yow amutoo fi benn représentant benn représentativité amoo ko tubaa parce que wàcc dañu laa wàccu parce que yow doo nit koo xam ne nii doo nit référence amoo xam-xam amoo base nit nag ba amul xam-xam amul base kenn soxlawu ko parce que coow wax rek dañ nag kuy woddoo làmmiñam bu noppee le yow sa làmmiñ ngay woddoo heure boo noppee rafle loo tax wax rek mooy def président nag moom lenn rek mooy mébétam mooy liggéey Sénégal saa su ne ci xëy di ci gontu loolu moo tax am na eh, ñoo xam ne ni du leen tal am na ñoo xam ne nii du leen tal du leen tal parce suñu borom da koo jox yan boo xam ne ni ci la nekk di ko liggéey yenn ko pour ñun nu ñuy nu ñuy fexe ba 2019 nu jël pouvoir bi mën a àggale liggéey bi nga xam ne moom la Sénégalais yi xaar ñu àggale ci loolu lañu lijjanti mais du mais nekk nuñu di xuloo ak saaga ak di waxante lu ñaaw ñun loolu taluñu ko loolu ñun taluñu loolu président ci jàngaluñu loolu xamuñu loolu ñun lépp yar teggin sutura loolu lañuy xaar ci loolu ci loolu lañuy lañuy dox mais duñ wuññi sutura jàmbur duñu saaga duñ xaste ñun xamuñu loolu kenn yarewul ñu loolu ki ñu yar loolu nag na ci nekk ba këram gis njariñ la yaakaar naa yaakaar naa njëriñ am gutti yow ndax mënoo dem fen ndax nit ñëpp dañ laa bàyyi ku nit ñi bàyyi nag vraiment kuy wax ak moom ci yaa ko tooñ je regrette